waa Ndiaye. waaw Ndiaye de démb. yóbbu sukaru koor ga ma fekke daa mel ni yebe xew. da nga ciy doog a jot. góoli. ah. du paar kàll. Eh. furu yu desut eh, euh, eh, sànni dara lépp la ndaw sa indi. yow Sénégal toj léegi sukaru koor camion la ñuy gaare camion. Ah! paña yi. tàndarma yi. waaye nag li ñuy def war na cee seet yàlla bu baax te xam. ne 1 million ya jasneer yi ak ak bordeaux autrice Sénégal toj na di. waaye neexal goro neex na nag waaye nag boole ci seet. tuuti yàlla doy na waa trop ordonnez-nous la famille libérale réunion ce soir pour la retrouver pour la gagner son parti parce la élection prochaine 1900 2014 on va gagner un le député le un le monsieur président. Ibra Macky Sall et là Idrissa Seck Farba Senghor Youssou Ndour et Mama Giras tous les familles libérales nous trouverons à la ce soir pour les prochaines élections législatives du Sénégal sama xol bi dagg na waat de xol bi kii gagné man kii laay ree xool leen kii sport salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaay booy. na nga def. waaw maa ngi sant maa. Ndada. waaye kan la. yaa ma lan la ay di la ko jaay ci bopp. yow di nga sol yow di nga mu doon nii. kii daa bàyyi bay la. munoo am bonne condition di sol def correct. condition laaj di ma dawala tëdd. yow yàqu nga. wóor na ma ne sa maama la nii nga yàqu ni lépp. lii waaye ñëwal rek ma jaay la biteel yi. war na may gees maan nga wuyu ma. biteel yu ñu defoon tàngara la waaye tàngara si jeex na. xaa yaa ko gees ba mu jeex naan ko def ko bii. ban eh, moom ne pas de daan tàngara quoi. benn ñett dërëm ñaar yi juróom. lan benn dërëm la am. bàyyi leen dërëm de turu jàmbur la. ma sama tur nag foofu rek. benn dërëm laay xaarit leen wax <laughs> de. d'accord ben dërëm. waaw defal benn ñaar dërëm. benn dërëm. damaa sonn woon suba tey maa ngi bëgg a dee ndax xiif ak mar benn dërëm laa am soo bëggee nga dem soo bëggee. waaw ah, gërëm. ma fay la. amul problème. mais lii lañ la. yow sopp nga nag trop da yam ci njaayum biteel rek. léegi diw wala ndox. ah booy. xam nga sa kanam gu waaw jamal damay dem. wuy ma amaguma wëccit bu ci kanamee wuy ma bu ci kanamee nga jaaraat fi bu ci kanamee ma ñëwaat. ñëwaat waaw aw ma wëccit. benn ñetti ñaari juróom de. benn dërëm. soof nga trop xool ko xool ko. salaamaaleykum. na ngeen def. jàmm rek salut tabaarikàlla. tabaarikàlla xanaa yow moom yaay maire yaa jël maire français. booy sa morom ñëw fi daaw jógal fi laal la. maanaam yaa ngi bu jël jógal fi waaw. maanaam bàtt dàll la. <laughs> salaamaaleykum. maman na ngeen def. kuy wax maman yee. Eh? nga booy yow réew mi xam nga xamul lu ma lay xamal. si nga fii sooy dof dof da nga koy yemale xeex gi soo fi ñëwee dof dof la dama lay dóor. dama tëdd sa kaw dégg nga baax na ma la. yow lu la tiital. dama koy xam waay.

tey laa lay dóor ba yàlla fóot say sagar te ngay mujjee ñëw fii sumil sumil sumil nga naan dama tiit sumil xool daal la mi bon sumil lii lii sumil sumil da ngay bondo ah, ah. ay biteel ma ay biteel man de doxal ak ah, liggéey ah. la yar leen doon def nii public. xam nga ne booy bi booy bi doful. booy bi nit la de. dàll yu baax yi yu bon yu ko laajal yu baax yi. booy bi nit la kii doful la dama lay wax. jógal jógal jógal léegi dog jot jógal jógal. jógal jógal. waaw mais tawaay góor gi nekk tëj de. foofu nga toll. àddina. lamsal waay. waaw ça va bien. bon. ça va bien. soogal foofu yàlla. man de nelawuma dara tey. yow xaal alal. dara dara leer. yow nelaw rek mooy sa métier. mais nan man lañ la raw lamsal. waaye point com. dëgg taaj. moo woyu de kii mais maa la jox information. di ko waaye kañu mu ànd ak jëkkëram. doom ja di ndox ba fàttali. continué noppi leen bu kenn waxat. bu kenn noyyi kii kan la Saad Bogi. daggatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëgsil ah waay waay laay la laa saat bu sàmm ngi ki nga xamante ni tubarkalla macha allah a ma muuru def leen daal. a la ah saat bu muy xamoo ko. merci beaucoup soyez bienvenue mi ngi doon sàmb taggab yonent bi dama laal si muur sàmb sàmb sàmb sàmb yegg leen ci suuf moom ñu màgg def sàmb nga ne moom lan la kii mooy sag bu sàmb waykat bu kii kenn dootu ko an ci Sénégal taggatu bi la ay ca boog. Samb mbéyum suñu garab place bi rek mbéyum si rek. mooy tax a déglu waaw bu mat. waaye jar na ko ah kay ah kay. Muhammadu Rasulillah yee njol ma ka yaa leen gën. sallallahu taala alayhi wa sallam. nabiyun ala kulli lanaami muqaddamu sayyiduna Muhammad. wa fihim kiraamu. wa huwa asma wa akramu sayyiduna Muhammad. huwa samsu nooran. والبرية عن جمه سيدنا محمد صلى الله تعالى على ليلة الإسراء وناس ومو لا لا لا لا لا لا محمد رسول الله سما يوننا سنباني محمد رسول الله sama loxo ca kaw ku sopp sayyiduna muhammad ah. loxo ca kaw muhammad ya rasulallah sunu yonel sanga baange ah. ah damay damay arrêté nag comme comme comme yéen da ngeen di daanu baal ma baal ma yemale waaw waaw lan xew ci barab bi lu tax ngeen di toog barab bi daal sang bi waaw ah, Ah. Ah, yóbbu ko ci wanag wa yóbbu ko ci wanag wa sëñ bi daal fii mooy bopp koñ waaw kay ah, koor gi yëpp ngeen koy jàpp mbaa du ngeen jëw mukk mbaa du ngeen xool lu ngeen war a xool mbaa du ngeen déglu lu ngeen war a xool ah bu dee loolu de yéen a ngi ci seen bopp koñ bi ci kaw ci kanam rek rek ngeen ñaan ci rek waaw bismillah aca sëñ bi kër ga nag dara nekku fa waaw non ma jox non bàyyil ma jox ko ko addi déet déet déet ma jox ko ko rek déet déet déet ma jox ko ko rek dëgg yàlla daal ndogu bi waaw defal nag waaw baax na waaw baax na man ma mën a nangu waaw bismillah amin amin amin amin amin amin ah Seydina Mohamed dafa dem